misid internet yi ba Sénégal Actu vendredi 3 novembre 2023 dalti leen na ak jàmm ci xibaar Moustapha Diop yëkkati ay kàddu nag jëmale ko ci opposition bu sénégalais bi opposition instant bi yi nga xam seen nag ñuy xeex ak Macky Sall daal ni ni xeexee nag dafa def ay reetaanlu ndax opposition boo xam se nag duñ àndandoo benn yoon ginnaaw nag ñoom lépp loo xam se nag moom la ni xeex daal duñ fekk ji rek seen moroomu opposition boo xam se nag moom la ni jaay doole normal moom nag moo àddi ci Ousmane Sonko wax na nag état bi nga xam seen nag ba mu dalee nekk Sénégal ba léegi nag fekk fi ay fekk fi état bu nekk daal état bu Sénégal muy état bu Macky Sall rek ñoom rek ñoo boole seen doole doole ju ñu am jépp di ko xeexee benn nit muy Ousmane Sonko loolu nag moo ngi koy soog a gis moom mii di Moustapha nag moo àddu wax loolu wax na nag Ousmane Sonko instant bi jaay doole gën koy def moom ëpp na lool ba àgg ci trop sax jaay ngeen jëf Moustapha Diop moo yëkkati daa di yoon